ay léegi rek ñaanal leen nu ma ne ko léegi rek ñaana leen nu ah, yow nag kenn du la laaj loo bokk ak Aida Samb ndax ngay bàjjanam ñu bëggoon xam rek tey noo gisee bés bi eh, li nga ma wax ni sama karaw bopp yi sax a ngi taxaw barke Serigne Touba ayda dama bokk ak moom baay ba pare bokk ak yaayam baay ku nekk xam na Samba Jabare ak Aman Njaay Samba sama papa ji ma ñoo bokk benn baay seen ñoo bokk seen maam yi bokk ndey ak baay Fatou Sim di yaay ayda Samb jël doomam ji topp ci Aïda Samb yëkkati ko ne ma may naa la ko ngay ndeyam yàlla weddi nag tey bés bii bu nu sañoon tey sunu mag ji day teew te li ma xamal de lenn la ayda Samb ku ko takk am nga jabar ndax ndeyam sëykat la ba muy dëkk ci kër ga fa la ma fekk te booba xale bu ndaw la mi ngi jóge lycée Ahmed Fall am bagam ñu indi ko mu jàng see fii euh, école normale d'enseignement féminin technique bi nekk Barachois keroog ba faat si njëkkee génn non fonctionnaire ña ko affecté Fandem muy sëykat nag baayam nekkoon éducatrice éducateur yaayam nekk éducatrice mu juddoo ci ëtt nag di xale boo xam ne dafa fekk lépp nu yab ko te musut a gis ndeyam ak baayam jote musut a gis ndeyam fay musut a gis ndeyam kalaame musunoo dégg faat si ak jëkkëram mu jël nag ay doomam boole leen suude leen ñu doon benn dem na yomal xayaam mais ay doomam du masa rayante kenn du leen masa àtte jaama sàmm nag mooy taaw njëkk juddu njëkk a baax uuf ay rakkam man tey jii damay ñaanal Aida rek sëyam bi yàlla na ci yàlla teg loxo sëyam bi yàlla na ko yàlla barkeelal yàlla may ko ci njaboot gu barkeel xale la boo xam ne lekku dara bàyyi mbokkam ku ku takk ci moom